وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليعقيمانا خطاب الإسلام والإحسان suñuy idée ak suñuy intention ñu partager ko ak waa dëkk bi surtout les dirigeants politiques et les dirigeants communautaires et les dirigeants religieux bu ko defee ñu mën a euh, defar Sénégal ba maanaam ñun li ñu daj ci jafe-jafe maanaam suñuy doom bu ñu ñëwee bañ ko daj il faut que ñu nangu sacrifier suñu vie pour génération future bii di jëw teggil leen benn fardo quoi. teggil leen benn fardo quoi tey ji boo demee en Europe. ñoom béatitude bi ñu am. muy jàmm ji ñu nekk seen maam a ko liggéey. est-ce que yaa ngi dégg wax ji. donc euh, à travers euh, yeeslu boobu. bëgg naa ko lancer. et puis bëgg naa nekk aussi. Euh, première sénégalais bi nga xamante ni day ami njëñ biir assemblée nationale. <laughs> non te dina ñëw sax incha allah. parce que benn tubaab dafa ma lu ma métti dafay ji sama njëriñ daal na ma ah yow moom nitu jàmm nga ma ne ko lu tax mu ne ma ndaxte. Mm-hmm. mosoo jaar ci loxo alkaati. Mm-hmm. ndax boo jaar mosoon jaar ci loxo alkaati yi wat nañ la bu yàgg. njëriñ lu gudd. <laughs> alkaati fii bu ñu la jàppee. dañuy njëkk a def boo amee njëñ moom li ñuy njëkk a def mooy dagg ko. dagg ko bu son tàkk ak laa moom te loolu <laughs> te loolu da ngay violer le droit parce que nit ki moom dafa sacré l' état le droit daf ko protéger. le droit physique quoi. le droit physique. Mm-hmm. amuloo droit mu def benn infraction nga jàpp ko. Mm-hmm. di ko violer physiquement. Mm-hmm. est ce que yaa ngi dégg waa. comprendre nga donc. il faut que ñu xam ni. dañu def ay njeñ. c' est sacré. c' est symbolique. mais c' est pas une source une signe de déviation. ou de banditisme. mais mag ñi fi nekkoon ñëpp dañoo amoon ay. est-ce que yaa ngi dégg wax ji. Mm-hmm. nañuy wax rek parce que fii ñu tubaab yi yar ñoo fi ëpp. Mm-hmm. ñoo ñu jiite ñu tubaab yi yar ñoo ñu jiite te tubaab yi dañu teg benn modèle de nit ku normal. Mm-hmm. ni mu war a mel te mbir mi demeewul noonu. tubaab bi instant si ñu toll bu ñu xamoon tubaab bi li muy dund. ñun développement tubaab bi soxlawuñu ko. parce que boo demee Europe insécurité bi foofu la ëppee ci benn dimension. te liñ bëgg yëpp ci kaw suuf am nañ ko. mais mënuñu am jàmm. ñun boo xoolee amuñu dara. mais am nañu jàmm. te jàmm jooju dañ ko war a préserver ñu ci boolee nag sécurité social sécurité sanitaire sécurité kii. su boobaa affaire yi àjjana lay doon. àjjana lay que yaa ngi dégg wax ji. man ma jox la exemple. Mm-hmm. Euh, man tailleur la mm-hmm. damay ñëw. Mm-hmm. mais dama lay wax ni en tant que tailleur. ma bëgg jaay Sénégal. mais lu jëm ci matière première yi ñuy soxla pour liggéey. mais benn duñ ko ci defaree Sénégal benn amu fi. naka nga bëgg man ma contribuer ci développement dëkk bu fekkee ni chinois bi wala indien bi moo may jaay matière première. Hmm. léegi bu ma tasanteex ñoom ci marché international bi naka laay compétir ak ñoom. waaw nu ma la jox ay kelema noppi nga gën maa mën mbir moom. yaa ngi dégg wax ji. Hmm. yow Sénégal am nañ coton. Hmm. Sénégal am nañu or. Sénégal coton bi. amuñu industrie de textile. loolu noo koy noo pourtant ay Sodefitex ak yooyu ñu ngi fi. ay Sotiba. ay yooyu yëpp gars yi daaneel nañ ko ñu fi tubaab bi baay moo tax paawu Touba bi ba ko waajal ba mu ne ko euh, indépendance kañ lay jeex. Hmm. mu ne ko waaj na ko ah indépendance kat ba mu ñëwee ba léegi. Hmm. affaire yi daa métti. <laughs> waaye li ko taxoon a jóg tekki ay jéng. Eh, tekki ay jéng. bu mel ne damaa ñëw eh, gën a jéggi jéggi yi maanaam loolu mooy tubaab bi. ni mu ñu fonkee woon en tant que être humain sax. ñi leen remplacer fonkee wuñ noonu fonkee wuñ ñu noonu parce que ñun ba ñuy nekk xale am na service yoo xam dañ ko doon gis muy SIAS. Sonalis. Sotiba. Bata. service d'hygiène. service hygiénique. yooyu yëpp dañ ko doon am mais service yooyu yëpp dafa disparaître. surtout te tey lañ ko gën a soxla. tey lañ ko gën a soxla. est ce que yaa ngi dégg wax ji. léegi bu fekkee ne tailleur bi ñi nga xam ñoo jàng ñaw amuñu tissu. tëgg yi gisuñu or bi jógee Sabadola. ah. uude yi gisuñu der. te Sénégal diggante màggal ak gàmmoog tamxarit korite këtt këttil di fii dee ci ay jur yëpp. tabaski bu jàllee rek der yi dawarkat sare ci dañ koy ramasser lépp. te amuñu amuñu amuñu amuñu amuñu société buy buy buy traité der. pour ñu mën ko pour ñu mën koo liggéey mën ko yóbbu ci marché international bi xoola Sénégal li muy ñàkk ci ci ci ci mbasin riche. Hmm. yu jóge Autriche ak jóge Autriche te xam nga baa da doon defar mbasin riche. effectivement di defar percale di defar malikaan di defar vax. mais tëj na. Hmm. chemin de fer. Hmm. sécurité routière. dëkk yi ak ni mu fi demee nii. insécurité routière bi. mais borom oto yi am nañ ci par exemple mais infrastructure yi ni ñu ko defaree. am nañ ci responsabilité. parce que tali yi répondre aux normes international mm-hmm. te pour am na réew nga mën koo développer da ngay fexe ba infrastructure routière yi lépp a baax. dama ne la infrastructure transport en masse. oto attanu ko train moo ko attan. Mm-hmm. <laughs> ferroviaire. Mm-hmm. transport ferroviaire. nga xamante ni yow tey jii da nga war a da ngay mën a jógee Saint-Louis. war a ñëw liggéey si Dakar wàcc Dakar delluwaat ñibbi Saint-Louis. parce que man dama ndekki Italie nekk Rome. diggante Rome ak Milan huit cent kilomètres la. te boo jëlee flèche rouge. deux heures de temps la koy def donc boo ko jëlee six heures du matin huit heures fekk la Milan. dëkk bi gën a jege Rome mooy Naples deux cent kilomètres la. train bi quarante cinq minutes la koy def mooy Dakar Touba quarante cinq minutes. xam nga côté infrastructure kon ñoom dañ cee liggéey bu baax a baax train bi bu fekkee loolu mooy train bi gaaw bi carrément bu dee train bu yéex bi am dëkk yëpp lay taxaw deux heures de temps te loolu mënoon nañ désengorger Dakar. effectivement parce que yaa ngi dégg wax ji. daanaka nelawuñ daal. Mm-hmm. mais discours yi ñoo dëppawul ak réalité bi. muy discours religieux bi ak discours politique bi. Mm-hmm. dëppawul ak réalité bi quoi. dëppawul dëppul ak réalité bi. Ah, est-ce que yaa ngi dégg waa ji bakaas la li ma ciy dolli rek mooy que. ñun seen citoyens yi kenn protégé wuñu man dama lay wax maa ngi dund benn souffrance boo xamante ni depuis mois de novembre. te ma jël conteneur. mu jóge Italie ñëw. ma fay samay droit de douane dem war ko teggi. ñu ne ma jotuwuñu release bi telex bi mooy société bi délivré wul papier boobu ma ne leen lu tax ñu ne ma sa transfert bi fayul leen. ma ne leen mais sama transfert bi fayul mais man fay naa ko te man du maa jox samay bagage société bi transfert bi laa koy jox kon transfert bi moom bu leen fayul man loolu du suma responsabilité ñu téye sama conteneur pendant six mois bu matee six mois douane da koy jël te duwaan bu ko jëlee saisir ko bu da koy yóbbu vente aux enchères da ngay ñàkk yow mi nga xamante yaa moom sa bagage te loolu ma trouvé ni c'est injuste te peut-être li ma dal nii dal na gulu yu bari dal na moodu moodu yu bari te fan lañ koy jooyee dañ lay bàyyee multinationales yi ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay torturer c'est illégal. c'est illégal effectivement. tu vois. mais ah, lancé homme politique yi. Mhm. président de la république. ministre des infrastructures ministre de la commerce ministre de l'artisanat. Mhm. ministre de <laughs> ministre de la jeunesse. ministre ñoom ñëpp. ñu vraiment qu'on soit ko mhm. qu'on soit sérieux quoi. message bi moom jàll na moom. oui. عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليتيمانا خطاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق judli bil ikhlaasi wa tawfiiq